sañ nga caa tiim tiim boobu sañ nga caa jàng lu dul wedd farata yi waaye nag weddu farata yi moom sañoo ci sañoo ko caa jàng maanaam su nekkoon tiim da ngaa am ngant bay tiim julli tisbaar wala nga julli tàkkusaan soo sëlmalee da ngay tiimaat werd waaye sañoo tiim boobu nga continuer si jàng ci werd wa nee na su fekkee ne da ngay werd ba yàgg nga yëg ni sobee ngi ci yow na nga dog werd wa dem dindi ko ba noppi jàppaat dem sama commencé waat nee na su fekkee ne da ngaa werd ba noppi nag fàttali ko ni yow kat bi ngay werd sobee ngi wan ak yow kon na nga baamu werd wa ci waxtu comme ni nga xam ni moom noonu ko doon baamoo ci julli ci waxtu su waxtu wa paasee nag kon wàcc na la nee na sooy werd ba yàgg nit dikk di wax ak yow nee na su fekkee mën nga koo ni junji ci sa bopp mbaa ci sa loxo na nga ko junji su fekkee junj ga du ca jëriñ dara sañ ngaa wax ak moom benn baat wala ñaari baat waaye su dul loolu nag sañoo paase ñaari baat yooyu lu dul dafa nekk sa ndey wala sa baay wala sa jëkkër wala sa sang wala sa sëriñ bi lay defal tarbiya nag sa sëriñ bi lay defal tarbiya nee na sa sa ndey su lay woo mbaa sa baay mbaa sa maam mbaa sa maamaat lu mu càll la ko kawe kawe njëgam bàyyi la rek sañ ngaa wax ak moom waaw sa baay ak sa maam ak sa maamaat yépp wayen alaw nee na sa sa sa sa sa jëkkër suy wax ak yow yow jigéen sañ ngaa téye sukur wax ak moom loo bëgg a wax ak moom sa sang yow jaam bi sañ ngaa wax ak moom téye sukur ba mu ba lépp loo bëgg a wax ak moom sa sëriñ bi nga xam ne da lay defal sa biir ci yàlla di la seete ci yàlla su fekkee mi nga wax ak yow sañ ngaa téye sa kurus nag wax ak moom loo lu mu bëgg a wax ak moom moo ni moo tax si daaj maa ngi wax ni bi kilmatin aw kilmatay ni xaddu an seexina teew ci yaay niimalaaddu nee na bu fekkee ni da ngay wax ak koo xam ni kii du ñii benn baat wala ñaari baat dong wala ñu la may te soo ko paasee sa sa yàqu na waaye bu dee ñii nag dagan nañu dagan nañu nga wax ak ñoom ba seen soxla fay fañu moo tax yéen ji maaxaata boobu. nee na nee na comme ni ñu ko waxee ci muy téeméer ba ak juróom. ma ne jigéen boo xamee ni muri na dara ci awraam di wedd wedd mbaaxatul amul ci ma nee na tàllal gi ñuy tàllal mbalaanu ngosifa ñii di ko tàllal ci juróom ñaareelu perba dañu koy def rek ngir yëgle ni yonent bi ñu ni ñëw waaye di caagi nag laaput fu laaba tax ndax baytul xalwati kenn dong la yaatu wala ñaar te day dagal na nga jàng fa jëwharatul kamaal ngir laab gu mu laab moo tax ñu ni nag boo gisee ñuy nekk ba juróom ñaareelu per ba dikk ñu ni firéet mbalaam mi li ñu ci jublu mooy yëgal xol yi ni am na sang buy ñëw ba teewlu gi ñu gën koo yokk nee na nag lal gi ñu koy lal nag nee na bokk na ci daw bokk na ci naam laabal place bi waaye nag du loolu dong nga tax ndax bu doon laabal place bi dong kon waaw su fekkoon ne ni masal fii dama ko damay jóom fii ma wax nii dama ko jaxase dama bëgg a wax ni laal gi ñuy laal mbalaanu nga si fa bokk na ci yeewante bi teew gi muy teew ak itam yaatal pala place bi maanaam ñii werd sobe sobe sori leen waaye nag du caagi nag yonent bi toog gi muy daji toog déedéet koo xam ne kii fu ñu war a lusiwaa nga dem fa foo toog tawu la maanaam nag bu ñu lalee mbalaan mi bu ñu tegee mbalaan mi xaar ba ci juróom-ñaareelu per bi ñu ni soog ni ko firéet loolu li ñu ci jublu mooy yëgal xol yi ni yonent bi rek mi ngi ñëw ci juróom-ñaareelu per bi loolu laa ci bëgg a wax nee na nee na moom Seydi Ahmad Tijaan ñaari rakkaa yi nga xam ni moom la ñuy jëg ci timis képp ku mu xaar na nga ko remplacé juróom fukki salaatu faati nee na juróom benn rakkaa yooyu jiite nag ñaari rakkaa yu jëkk yi da nga ciy jublu sant yàlla ci bind gi mu la bind ñaari ci sa nga jublu ci sant yàlla ci ngëm yàlla gi mu la defal ak boole gi mu la boole ci lislaam bu ko defee rakkaa yooyu gi nga ciy jublu moo di nga nga sant ci yàlla itam ci ñaar rakkaa yi ci nga sant ci yàlla ci xarata ji nga def te amuloo benn nga am te defe ko ni ko yàlla bëggee ak itam nga teg ci itam ñaar farata yi lu ci manqué yàlla jàngee la ko loola waaye kenn war ko tudde naafila ndax naafila mooy nga matal bay dolli te nag wóoru la ndax mataam notul moo tax nit yi yàlla yi moom jab ran la ñu ko tuddee laa naf lan waaw nee na su fekkee ne dayow tiijaan bi da ngaa dem njaaloo ji mbaa nga dem naani sàngara maa nga dem rëy nit wala nga def bàkkaar bu mag boo xam ne bii borom diine ji nee na ku ko def dem sawara te ngay tijaan ana nooy def nag léegi donc nga ci tariixa bi wala dogoo ci tariixa bi ma ni boo def tijaan ñaan weddi ba ma noppi dem njaaloo ji wala nga dem naani sàngara wala nga dem rëy nit wala nga dem defi lu araam ana nooy def léegi da ngay ñaanaati wedd wala looy def déedéet loolu dogul kenn ci tarixa bi ni muy def mooy da ngay dem tuubi bàkkaar booba te nag sar ci tarixa bi itam nga def ko nañu ko def nañu ko waxe woon maanaa waxuñu ni kuy tiijaan sañ nga koo def waaye su la ko yàlla nattoo ba nga def ko da ngay dem jéggalu ji yàlla ba noppi nag dem nag continuer sa wedd soo ji ndax ba ngay ñaan tarixa bi soo jóge woon ca bistro ba wala nga jóge woon ca caga ba wala nga reyoon nit ci àddukal ba ñëw te dem ci mu xàddam bi ni ko damay ñaan tariixa bi sa mooy yàlla yuy te- taxul mu sañ la ko bañ a may ak loolu nga def yëpp sañu la ko bañ a may te war na la ko may itam te su la ko mayee itam nga di ko wedd la Seydi Ahmad Tijaan ci yoon yëpp ci nga ci jot ndax dafa am benn waaye boo xam dafa mos a def mooy yàlla bu rëy tiit loolu def Seydi Ahmad Tijaan mu ni ko dara warul la lu dama tuubal yàlla rek waaw lii nag tekkiwul ni da ngay sa tàngloo tarixa bi dem di mooy yàlla déedéet dañu la ni daal du doog kenn ci tarixa bi waaye da ngay tuubal yàlla waaye soo ko defee yoonu tool yi ñu génne la ci àll ba rek
كذا ذكر الإله منتهى الولاية واغلق ذكر الإله منتهى الولاية شابنا ذكر الإله منتهى الولاية شلبي ذكر الإله منتهى الولاية لكم ذكر الإله منتهى الولاية الأوي والعز رضوان والإكرام ورفق في تعديها نعمان شر ذكر الإله منتهى الولاية ولأنه مبدع نهاية آه ورقي جرجم baam nga sànq lu doy waar waaye ku baax a koy def de ku baax a koy def waaye ñu bare ñu demee ni yow su leen daloon duñu ko nangu waaye nag nangu cër bi la yàlla cëdd yàlla juumul insha allah lii de day jëm kanam waaye du dellu gannaaw dafa am benn nit ci yàlla bu nekk mbooloom wër ko mu toog ba yàgg mu ne ana karkadaanil awliya benn nit ni ca mbooloom mu bëri ni ko al mubarak al mubarak wër gi ne teg ba yàgg waaja mu ne wa ñëpp dem yoonam mbooloo ma ne ko moom sang bi lu tax bi nga waxee ni kii tontu la wuyu wuloo ko mun a ko ah dama jàll fekk yàlla ci cër mu woon ma ne ma lu mu doon am na lu ko féete ko ki ki ma doon waxal su borom won na ma ci xijaabam ne mboolem kawar yi ko wër kawar bu nekk junniy malaayika nga ci yoo xam ne su ma leen jege woon dana deme ni takku takku safara fa tabarakallahu yal na yàlla jàppale la nii nga mel yal na yàlla jàppale la nii nga mel yal na yàlla jàppale la nii nga mel yal na jëm kanam
baal ñu ñu nekkale tuuti rek nee na moo tax ma ni man ataa bi ma xarama allahu laa yalsamuhu tajdiidu bal atawbatu nee na koo xam ni kii dangaa def lu yàlla araamal te ngay diyaan waroo yéesu dangaa war a tuub dool yàlla rek ca sarti tuub yi ñu waxoon nag ndax ma ni dafa am benn waaye boo xam ni dafa def moo sa def mooy yàlla bu rëy dikk lool ci ci si ama tijaan lool wax ko ko mu ne ko dara warul lu tuub rek dara loo faa ñu ci tarixa bi waaw nee na birul waalidayni nag birul waalidayni min suruuti tariqati tijaaniyati nee na téeméeru masal ba ak fukk nag moo di topp sa ndey ak sa baay mi ngi bokk ci sat tariqa bi képp ku am ndey baay toppoo leen doo tijaan ak sëriñ boo mën a topp ak loo ko mën a defal ak addi yoo ko mën a lu mu rëy rëy tànk sa ndey ak sa baay bokkuñu ci ne la woon di doo tijaan moo tax sëñ baa ko dina wax ne sëñ Hadj Mbaye dina wax ni naan càkket si càggat si tibb si waaw càkket si cagat si tib si boo amee ndey ak baay muy dund yi nga na nga ko wodd na nga ko sàng na nga ko dëkkal waaye bàyyi sa ndey ak sa baay jël sa alal dem yëpp sëriñ te dafa ne tekki nga fa dara dara doo ko fa tekki tànk jiitaloo sa ndey sa ak sa baay na la wooni doo am ci yàlla dara amul benn sëriñ it ak lu mu rëy rëy rëy boo xam ne bi mën naa jëlu yàlla ak yonent bi di la defal dara te jé jéekoo ci yàlla ak yonent bi wax naka noonu taatu zawji sartun li tariqati bépp jigéen boo xam ne bii itam am nga jëkkër baye boo nga werd baye boo nga wasifa baye boo lu neex def tànk topp sa jëkkër doo tijaan kon nag topp sa jëkkër sart la ci tariqa Seydi Ahmad Tijaan yi radiyallahu taala anhu kon nag tariqa Seydi Ahmad Tijaan du nax kenn képp koo xam ne kii da nga ci am mbooloo moo xam ne yaa ngi koy dem na nga tàggu sa jëkkër ba mu bàyyi la te itam ak mbooloo ma mu nu mu mën a demee it sañoo bàyyi sa service su jëkkër ngir mbooloo moomee wala liggéey booba kon nag na ngeen déggoog seen i jëkkër yi del sogo déggoog seen sëriñ yi kon nag jëkkër yi ñoo jiitu sëriñ si tabaarakalla kon nag yéen jigéen ñi nga xam ne da ngeen nekk ci yeneen na ngeen xam ni seen jëkkër yi topp ko sart la ci tarixa bi waaw kon nag bépp sëriñ boo xam ne bii da lay deq day deqalee jabar ak jëkkër na la wooni kookee du sëriñ waaw nee na nee na loolu mooy masalam fukkeel ma téeméer ak fukk ak benn lii ma wax nag insha allah waxoon naa leen téere yi ma ko jële yëpp lu ci waaye weddi yëpp na woon ni koy ni weddiwul sëriñ moor kat téere yooyu ci tarix bi la weddi te insha allah andi naa yëpp nee na bu ñu sikkar ci mbooloo nag nee ñu ñun dañuy def géew moo gën ah nee na almasbuuqul mutayammimu laa yasraw fi badali bal yasraw fi xabaay maa faatawu nee na boo xamante ni bii dañu laa raw yow mi nga xam ne dangaa tiim ba sa weer di mat ba maanaam bu fekkee da ngaa fekk ji wasifa nga dem di wasifa ak ñoom ba nga xam ni ñoom eggal nañu te yow eggalagoo te fekk na it jëwarul kamaal bi doo naroo ko na jàng lu da ko nar a remplacer salaatu faati nee na bul dal di eggale sa jëwarul kamaal da ngay dem dali ca ginnaaw boo eggalee lañu la rawoon nag nga sugg a indi jëwarul kamaal bi mu muy te muy ñaar ñaar ci salaatu faati yi te yow ma tax dégg li ma wax dama ni al masbuuxu ku ñu raw al mutayammimu ku di aji tiim laa yasraw du dugg fil badali ci remplace yi jëwëral kama salaatul faatiha bal mi fi nekk yasraw day tàmbali ci xadaay maa faatawu ci fay la ko waroon la ko faatoon maanaam su fekk dégg ko su fekkee ni da ngaa da kiim da doon sa farata nga xam ni mënoo jàng jëwëral kamaal nga dem ci giir wasifa ba nag ànd ak ñoom ba ñu demee ba eggal nag ba egg ci jawharul kamaal xanaa yow kon dañoo jàngal jawharul kamaal te tiim bi te am na lu ñu la rawee woon itam nag xanaa kon ñaar yëf yi séq na la kon da ngay dellu ginnaaw def astaghfirullah asmadu si laa ilaha illa xayum ba def laa ilaha salaatu faatiha ba def laa ilaha ba noppi soo ko dikk si nag sa jawharul kamaal bii nga xam ne mi ngi la fi xaar nga remplacé ko ñaar fukki salaatu faatiha dégg nga ko baax mooy loolu nee na téeméeru masala ba ak fukk ak ñeent moo di kuy nàmpal ab busi maanaa jaay ko te yàpp suqi ko te fos ñii ñëpp bu ñu wertee cay sabe yooyu ñu ànd ak jéggal nañu la ko déggal ko te duñu ko baamu nee na wal masbuuxu yabda'u haysu wajadahum kooku waxoon nañu ko mooy boo ñu rawee daal foo leen fekk rek na nga daali foofa soo noppee nga fay te waxoon naa la itam dagan na itam nga fekk ñëy wasi fa nga dab leen ci ci yàllu ba tolloog ñoom soog a ànd ak ñoom eggale nee na su fekkee ni nag léegi na mbooloo dafa dikk ñaari mboo maanaam juróomi juróomi nit dañoo dikk doon dabee wasi fa fekk leen ci laa ilaha illallah yeneen nit dikk doon dabi wasi fa fekk leen ci jawharatu kamaal yaa may dégg dama ni ñetti mbooloo gi mii mbooloo dañoo commencé leen wasi fa ci jàkka ji mii mbooloo dikk fekk leen ci bi salaatu faati di jeex ñu ànd ak ñoom laa ilaha illallah ba wasi fa yi egg mii mbooloo dikk fekk leen ci jawharatu kamaal wasifa wu mag yi nag egg na léegi ñaari mbooloo yi li ñuy def kon ñaari mbooloo yi su leen neexee kenn ku ne fay bu leen neexee mii mbooloo berfee seen wasifa mii mbooloo berfii seen wasifa kenn ku nekk nekk sa mbooloom bopp ñu wasifa ci jàkka ji boo demee paas di nga gis ñetti jéeyi su wasifa ci benn jàkka ji defe naa ñi mi miin paas xam nañu loolu boo fa demee di bii mba bii mbooloo di wasifa bii mbooloo di wasifa bii mbooloo di wasifa wala bii mbooloo wasifa ba dem bii mbooloo di ko wasifa baa di nga li ma la wax am na gàmm gu ma fa fekkoon yàlla def na keroog borom caabi ja may na ma ma fanaan te jàkk ci xabru si damati jaan man dong fanaan naa fa ba asamaan set waaye ndigal laa ko defe woon na man kenn képp nekk naa fa ba asamaan set kenn fekkuma ko ba ma eggal ne bëkk ne ba wala kenn dikk ne daa jox ma benn taasu meew ma naan ko soo génn loolu yàlla defal na ma ko fa ci barke ñoom sëñ sëriñ nee na mu nee na ki nga xamante ni bii dañu koo raw ba wasifa wi egg léegi su wasifa wi eggee moom ki nga xam ne dañu koo raw te fekk na mi ngi jógoo mi ngi toogoon wan ginnaaw penku ndax moom moom mu day wëlbatiku jublu penku am day continuer jublu ci mbalaan bi masala mii sëñ baa ko si laaj na ko wax na ko ca téeréem ba nee na nee na yonant bi de wax nañu nu kañ lay ñëw ci wasifa waaye waxuñu nu kañ lay dem dañu ne ni yonant bi bu ñuy wasifa ci juróom-ñaareelu per ba lay ñëwee waaye nag ndax su jëwarul kamaal bi noppee day dem wala bu ñu ñaanee lay dem wala bu ñu tëj lay dem loolu la suñ baa ko ne loolu moo waxuñu nu ko kon nag laaj ko nee na sëñ baa fa ni kon nag jublu penku sartu kamaal la waaye du sartu wér sartu kamaalin laa sartu sihatin kon nag moo ne sart la boo xam ne day matal waaye du cee buy cee wér war nga si fa wér sëñ baa ko ni ne kon nag li gën moo di nga continuer jublu ci mbalaa mi ba ñu ñaan ba noppi ba géew bi tax mu wóor kon nag yonante bi moom dem na léegi nag nga wëlbati ko jublu penku ana lu tax ndax balaa nu wusi mu wóor na ni yonante bee ngi fi te dafa am man Aba Jafari Mansour dafa mos a dikk di siyaar yonante bi fekk fa Seydina Malik radiyallahu taala anhu ba mu siyaaree bay ñott bay ñaan mu ni Malick ndax damay jublu ci xabru bi wala damay jublu penko imaam Malick ni ko jublul ci xabru bi nga ñaan xanaa xamoo ni kii mooy sa wasiila adduna ak alaaxira kii mooy sa wasi mooy mooy mooy wasiila aadama ba ko tooñee ba mu defee la mu defoon ba bëgg yàlla jéggal ko ci yoonu sa maam yi ci yonent bi la jé- la la jot ni ko kon nag kii mooy xe- euh, euh, penku penku yi jublul ci moom nga ñaan sa soxla moo tax boo demee mii dina léegi booy ñaan jubli dañ la wëlbati ko jublu penku nga xam ni boo koy seet yonent bi rek la ñu kontar imaam Maalik mi leen ëpp xam-xam fop nga xam ne mooy sëriñu saaf yi saaf yi mooy seen sëriñ mi sëriñ am nañu am baat mi nga xam ne ngërëm la ñuy topp moom imaam Maalik moomee moo noon waa ji jublu ci yonent bi nga ñaan waaw kon nag su fekkee dañu laa raw ba wasifa wi egg te yow nga war a mottali sa wasifa da ngay bàyyi jublu mbalaan mi ba ñu ñaan ba noppi ba lem mbalaan mi nga war bëti ko ne yow jublu benn waaw moo tax mu ni sëñ mbaaw ka ni alxuduru inda saabii saabitun walakin waxtu rujo yi mubhamun wa xurmatul mumini asom min min xurmati min xurmati kaabati fa kayfa bil akmali nee na wax nañu ne waxtu bi ñëw waaye waxtu bi waxtu bi muy delloo te ormay julit moo gën a foor fopp ormay kaaba ga waxuma laa ne yonent bi nga xam ne moo gën a mat yépp nag kon jublu jublu nag moom nee na téeméeri masala ak ñaar fukk ba nag nee na bu ñuy wasifaatee ba noppi nañu fa bàyyi mbalaan ma ba ñaan ba noppi sobale mbalaan mi nee na su fekkee ni dangaa tàmmali werd salaatul faatiha ilimaan commencé xutba nee na dagan na nga remplacer salaatul faatiha beneen salaatu bu gàtt ndax nga mën a déglu wer- werd xutba bi nee na jàng werd wi ak wasifa yi ci yoon yu laab yoo xam ne amul sobe loola dagat na doonte la togg moo gën moo tax mu ne si yaay maa ni wa saahirun yamsi bi turbi saahirin yaqra'uha bila xilaafi saahiri si yaay maa ni nee na ku laab di dox ci suuf su laab sañ ngaa jàng werd wi te te wuute gi ñu ci wax wuute wuute daal amul solo moo tax mu ne wa taahirun aji laab yem si kook mi ngi dox bi turbin ci saahir si laab yaqra dina wer dina jàng wer di wute bi laa xilaafi ci dul wuute saahir bu di aji am solo bu di aji feeñ mu ne nag al wirdu wal wasifatu fiyaani fi taqdimi wa taxiri nee na sëñ Haaj Ma sëñ Baaw ko si nee na laaj na sëñ Haaj Maalik ni ko werd bi ak wasifa bi ji bu ci buñ ci war a jiital mu ni ñooyam dong waaye nag ne xaaral wax na alxaaji Malik radiyallahu anhu al wirdu huwa al aslu su'alu min al xalifati nee na werd bi daal mooy cosaan bi kon mel na ni jiital ko daal jikki ko moo gën nee na sëñ baaw ko nee na laaj nañu sëñ Haaj Malik ilimaan ji tux nag waaw imaamun yedduxul nee na lay amahu yooyu du abadan nee na du ko jiite mukk te bu ko jiitaleen mu baamu abadan waaw nee na nag ilimaan ji tox du ko jiite jiite mukk te ko su ko jiitee dina baamu abadan juleen waaw nee na nee na bu ñu la rawee ci wasifa wi itam ba nga xam ni ñii wasifa eggal nañu nee na bu eggalee jooru kamaal bi bu mu eggee rek sañ ngaa commencé fay sa wasifa waaye bul xaar ñu ñaane ko tëj loolu mooy masalam téeméer ba ak fukk ak juróom benn téeméer ba ak fukk ak juróom ñaar moo di sëñ baa ko si ne laaj nañu Seydi Haaj Maari radiyallahu taala anhu ngéntal doomi caaxaan yi ndax war nañ cee dem wala waruñ cee dem ak war nañoo lekk laaxe wala waruñu ko lekk nee na xuduru aqaayiqi awlaadi sina laa yajuusu li ana iaanatu saahibi alal maasiyati fala yakulu taamuhu nee na nit mooy yàlla ba noppi di di di di di di di di di màggal mooy yàlla ga daganul kenn teew fa teel ñam yañ ca togg it ngir màggale ko mooy yàlla ga daganul kenn lekk ko kon nag ilimaan ja nga xam ne dañu ko jiitaloo jàkka yi ba noppi saay saay mooy yàlla ba noppi ni kaay kaay réerlu sunu sunu ma yàlla gi nee na loolee nag moom xaw naa dugg ci kéefar moom kon nag li su moyee yàlla dafa war a tuub yàlla kon nag def ko duñ kéefar waaye màggal ko ne kéefar la waaw nee na waaw foofu daal lañ ci bëgg a yemali asalaamualeykum war a xam ni sukkandiku ni ci wax masal yii ñu doon wax mooy téere yii ñuy bëgg a wax mooy jawaahirul maani wa buluuxul amaani fi sayidi sayidi abil abbas tijaani yi bu njëkk ba mooy jawaahirul maani ba ca tegu mooy rimaahu hisbi rahim ala nuhul hisbi rajim ba ca téere ñaari boon mooy rimaahu bi nga xam seexal aji umar taalif na ko ci ci ci tarixa bi te mu nekk ci jeexalu ci peggu jawaahirul maani téere boobu itam am na ci masala yoo xam ne foofu la ñu ko jële am na ci masala yoo xam ne ñoo ko jële ci ifaamu munkiril jaani ala tariq Seydi Ahmed Tidiane ifaamu munkir bi nga xam Seydi Hadji Malick moo ko defar moom it am na yu ci jëlee am na ci yëpp ba leen téere boo xam juróotu xaridati yaaxuti sara yaaxuti falisi benn ba moom la li Seydi Mouhamad Fatah am na ci boo xam ni ñu ngi koy wax aljaamiu lima ftaraxa min al ulumi al faidati min al xutb al maktum am na ci boo xam ne bii noonu la tudd moom Abdou Misri moo ko defar am na ci boo xam ne Faakir Tulaab la Seydi Hadji Malick moo ko defar am na ci boo xam ne bii jinaayatul muntasibil aani fii maa nasaboo bi kasi bi di Seex Tijaan di Seex Alaaji Ahmad Sukari am na téere boo xam ne bii mi ngi tudd moo téere boobu li muy tekki mooy yi nga xam ni dañu ni ci Seydi Ahmad Tijaan di jóge ak asa yi nga xam ne dañu ni Seydi Ahmad Tijaan di jóge te yooyu jógewul ci Seex xëy na mën naa jóge ci keneen waaye seex waxu ko nee na yooyee la ca doo dajale moom seex bi koy am na ci fukki façon yu wasi fa ak ñeent yoo xam ne benn seex si di amat jaan waxu ko jël nee na itam am na ca fukki turi yàlla ak ñaar fukki tere turi yàlla yoo xam ne benn bu ci dañu ni mooy daayira ci haata bi nee na te benn du ci daayira ci haata bi ba amu ci benn boo xam ne seex seex nee na mooy daayira ci haata bi téere boobu loolu la ca nekk am na ci bu ñu wax ak diisu kafiir moom itam ñu porte Seydi Ahmad Tijaan moom la ca boroom dàggal seet yom andi ca ay lay ba sembal leen am na bu ñuy wax ifadatul ahmadiyati li Seydi Alhaaji Seydi Sufyaan yi tey ifadatul ahmadiyati boobee am na lu mat fukki jàng yoo xam ne Seydi Ahmad Tijaan jàngleen nañu ko ko boobee ma nga ca andi naa ko ca bànd ba ca jeexlu ba kooku Seydi Seydi Seydi Sufyaan yi mooy ki ko defar moom mooma Seydi Seydi Sufyaan yi boobu nag moo demoon moo moom la Seydi Ahmad Tijaan toogaloon ba yàgg mu ne ko ki nga xam ni ba ko ndeyam ëmbee te ndeyam di bëgg a daanu te sëriñam aw yaayam ba na mu war na gaañoo gaañoo wu ca lu dul as digat dong la am ci bopp boo xam ne ca loolee la ko dale ba mu màgg ba fa tabaarakallaahu ana lu tax mu yéexam te lu di jël weddu sëriñam boobu waaye
loolu Cheikh.
waaw Cheikh wax boo ko wax si si Sufyaan yi mu ne ko fekk say tay siyaani dafa am benn liggéey ci bopp bi waaye liggéey boobu nag da ko judduwaale xamul lu ko ci dal yaay mooy say liggéey boobu nag Seydi Ahmad Tijaan wax ko ko mu dem laaj ko yaayam mu ne ko wax dëgg yàlla liggéey bii da ngaa judduwaale rek ma gis ko xam naa ni ba ma la ëmbee am na benn bis may bëgg a daanu am lu ma téye ba yi li ba na mu waroon a métti métti tuuti daal laajte gaañoo boo xam ne yàqu yàqul mi ëmb bi ma la ëmboon moo taa di jëm dem tarixa bi fekk na mi ngi wan ci tarixa wa zaan moo am na benn bis itam moo taa dajeeg mbokkam yooyee ñuy waxtaan ba fekk Seydi Ahmad Tijaan mi ngi julli benn taalibam romb ko daal di koy xëcc mu dem ba mu jullee ba noppi fekk Seydi Ahmad Tijaan mu rawee na ko ay raka ba Seydi Ahmad Tijaan jullee ba noppi mu ne mu ne ko sëy sëy bàyyi la waxtaan dara lu la ko jóge lu dul lor lu dul lor rek waaw maanaa Seydi Ahmad Tijaan dafa bëgg a wane ni ku taalibeem nekk bëtam mi ngi jàkkaarloo ci moom ak lu ñu bari bari ak lu ñu bari bari taalibe Tijaan ci ku ñu saw la saw saw defe naa ñu nekk ci àll xam nañu ko saw moo di boo amee saw ko wala sa mbaam ngay bañ mu ruur te bëgg ngay mu for da ngay dem fekk palaas bu sëq lépp ak ñax mu naat ñax mu baax nga ut ab am boo fa fekkee garab nga yee ko ci suuf bu fa fekkul garab nga am ab dot xam ngeen ab dot ta addot mooy bett boo xam ne bii wala xeer wu day nga gas ba mu xóot nga yeew ci bu nga suuka ba mu ne kekk nga xam ne lu mu xëcc xëcc du fa jóge wala nga yeew ko ci garab goo xam ne bii lu gëm gudd gudd rek ci loxo la ne noonu la Seydi Ahmed Tidiane def ay taalibeem lu mu sori sori ak lu mu jigéen jigéen mi ngi ciy loxo ñi ngi koy sàmm waxtu wu ne moo tax mos nañoo laaj sëñ Babacar Si radiyallahu taala ni ko ndax ta sëriñ mën naa xam taalibeem ci biirum ndeyam ah mën naa xam waaw mën naa ko gis ma da tax sëriñ mën naa xam ni taalibe bu ko gisee te jëlagul wert mu ne ko ah da nga naan kay ndax sëriñ mën na ñu dem ba géej nanga mi junniy taalibe sangu géej ba ñu sangoo ñu dem te benn ba xalan ko fa ba ñu xalangoo ba jóg ñu laal leen par laa taalibe yi dem faxasi jaba set ci wicc sëriñ bu ne dikk fekk far fépp nga xam ne ni takkoon na sa taalibe da nga naa ndax sëriñ mën na loolu kay te loolu xanaa mooy bu ndaw ba ndax xut bu jaamil akbar bi nga xam ni Seydi Ahmed Tijaan xutbaane bi nga xam Seydi Ahmed Tijaan jot na ci te boobu juddugul sax maqaamaam